الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله seen mbokk imam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo delsi tey jeudi 24 novembre 2022 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu audio numéro 363 mbokk yi ci sunu jotaay bi passé ñu ngi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi ca Arafat ba muy def xutbaam bi nga xam ne moom la def ci ajam bi ñu gisoon première partie bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xutba bi daf juróon fàttali lu jëm ci mbirum imaan ngëm ak lu jëm ci mbirum ibaadaat jaamu yàlla te ñu annoncé woon ne dañuy dem ci muamalaat yi maanaam suñ jëflante ci sunu biir ñun jullit yi xutba bi yonent bi daf ci wax yu baree bare yonent bi sallallahu alayhi ci xutbaam bi nee na nee na jullit yi nañ xam ne ñoom seen biir ay frère lañ jullit jullit bu nekk yow jàppal ne yow sa mbokk jullit jullit beneen jullit boo mu tijji sa mbokk la sa frère la loolu alxuraan la yonent bi daf ko fàttali yonent bi ne amul kenn koo xam ne gën nga nit lu mooy ci ragal yàlla ak ci julite waaye amul kenn ku gën nit ndaxte yow der bu weex nga wala der bu ñuul nga wala der bu xonq nga wala der bu jaune nga wala yow ci famille nangam nga soqe ko wala yooyu yëpp amul benn valeur ci borom bi allah subhanahu wa li am valeur ci borom bi mooy ragal yàlla julite foofu la nit indi di rawante fu mu nekk tomb bu am solo ñaareelu tomb bi ci wàllu muamalaat yi jëflante yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ci xutbaam bi nee na euh, jullit bu nekk na sàmmal moroomu jullitam alalam ak bakkanam jullit bu nekk na sàmmal moroomu jullitam bakkanam ak alalam yonent bi mu ne bu kenn lor kenn bu benn jullit lor mbokk julitam soo buggee yow kenn du la lor kon bu loraate soo bañee ñu lor la mbokk yi ñu fàttali rek ne lor mun na dem ci alal mun nga lor nit ci alalam mun nga lor nit ci yaramam mun nga lor nit ci njobootam waaye buñ fàttee tamit ne mun nga lor nit ci deram yàq der lor la yàq der lor la te dafa bari ñun ci sunu jamono ak euh, réseaux sociaux yi nga xam ne wax dëgg yàlla li ci xew ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na lool ëpp na lool li ci xew ci wàllu yàq der dafa bari ci jamono yàlla ci yàlla muccal kenn kenn mun kenn kenn personne n'est abri amul kenn koo xam ne mun nga mucc ci ci ci ci réseaux sociaux yi mbokk yi ci yàq der yi nga xam ne mu ci réseaux réseaux sociaux yi xanaa ku borom bi Allah subhanahu wa taala euh, dimbale yal nañu yàlla dimbale ci wàllu woowu ñetteelu tomb bi ñu indi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ci wàllu riba yonent bi nee na jullit yi bu riba buleen ko jëfe bu ko jëfe bu ko joxee bu ko lekk riba mbokk yi muy intérêt même pays réewi réewi Occident yi moo xam Europe Amérique Asie ñiy liggéey ci finance ñoom seen bopp xam nañ ne intérêt dafay dafay lor dafay yàq économie xam nañ ne intérêt dafay yàq économie day dama dama dem ba kenn du ko attan ñàkk àttan boobu ñu ko nit ñi ak entreprise yi di di ko bañ mun a àttan mooy bloqué économie bi mooy économie bi moo koy yàq ñëpp d'accord nañ ci loolu moo tax réew yooyu la réew Amérique yi réewu Europe yi réewu Asie yi donte réew yooyu ñu ci bëri duñ jullit ñu ngi dugg ci finance islamique ñu ngi dugg ci finance islamique kon kon su weesoo su weesoo jëflante bi nga xam ne euh, banque yi ñu ngi koy jëflante ak euh, ñi leen soxla jëflante boobu mën na nekk ci beneen anam boo xam ne de nekk euh, intérêt dina ci am loolu du xëcc waxtaan bi fii waaye ñu junj ko noonu maanaam riba intérêt nga xam ne islam daf ko daf ko daf ko bañ lool gis nañ ne ci wàllu àddina nii rek intére dafay yàq lu baree bare bare bare ci àdduna rek mbirum àdduna gis nañu intérêt dafay yàq lu baree bare ni muy yàqalee doomu aadama bi noonu lay yàqalee réew intérêt bu bëri kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ci tere ko ne buñ ko jëfee ñeenteelu tomb bi ñu jukki ci xutba yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci wàllu muamalaat yi yonent bi saa saa mu ne saaba yi am ngeen àq seen diggante ak seen ay soxna am ngeen ci àq wante ñoom it tamit am nañ àq kon diggante seen soxna ak yéen diggante seen soxna yi ak yéen ni ngeen amee àq ci ñoom ñoom tamit noonu lañu amee àq ci yéen jëkkër dafa am àq jabar dafa am àq yonent bi yonent bi mu ne su nekkee déggan nañ leen seen soxna su nekkee déggan nañ leen xam leen ne yéen yéen leen war a yéen leen war a yor yéen leen leen war a dundal yéen leen war a jox luñ sol yéen leen war a faj suñ leen déggalee mbokk yi kon kilifteef mooy daanaka droit bi nga xam ne moo jiitu ci ci droit wu jëkkër jëkkër daanaka daanaka àqam kilifteef la ñu nangul ko teefam su ko defee moom tamit mu dafa boo jabaram mu nekk mu nekk buuru kër gi yonent bi mu ne na ngeen na ngeen gentil seen diggante ak seen jabar na ngeen gentil na ngeen gentil na ngeen baax na ngeen neex deret na ngeen gentil ndaxte ñoom seen ay partenaire la ñoom ñoo leen di mottali mbokk yi mu nekk lu am solo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi jàpp ne jigéen dafa amul droit ci lislaam jigéen considéré wuñ ko ci lislaam xanaa ñàkk xam rek xanaa ñàkk xam waaye lislaam ku ko xam Euh, di nga gis ne di nga gis ne jigéen jigéen buur la jigéen buur la ci lislaam ci lu wér mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi xutbaam bi daf ko tëjee ñaar yoo xam ne dañ ci insisté ñaar yi mu tëjee xutbaam ñaari tomb la ko tëjee xutba bi mu ne bu njëkk bi tom bu njëkk bi mu ne bàyyi naa leen ñaar bàyyi naa leen loo xam ne su ngeen ci moyee su ngeen ci jàppee ba mu dëgër du ngeen mosa réer ah mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bàyyee naa leen mu ne saaba yi bàyyee naa leen loo xam ne su ngeen ci jàppee ba mu dëgër du ngeen mos réer mukk bàyyee naa leen yoru yoon wu leer nañ bàyyee naa leen alquran ak sunna mbokk yi ci xutbaam bu njëkk ba ci xutbaam bu mujj ba ngeen jéggal ma ci xutbaam bu mujj ba ca Arafat yonent bi insisté na ci lii ci la wax ne bàyyi nañu ñaar muy alxuraan ak sunna suñ ci jàppee ba mu dëgër duñu mës a réer du mës a réer mbokk yi réer bari na suñu jamono réer bari na ci suñu jamono lool façon réer yu yu yu yu doy waar réer ci biir réer réer ba fa réer yem wante nag alxuraan suñ ci delloo ak ci njàngale yonent bi sunnaam duñ mos a réer ñun kon yal nañu yàlla naq yal nañu yàlla naq ci géeju alxuraan ak ci géeju sunna yal nañu fa naq bañ làpp yal yàlla naq ci géeju alxuraan ak géeju sunna bañ làpp ñaareelu tomb bi yonent bi sallallahu alayhi wa tëjee xutbaam bi mooy mu ne yonente bi mu ne ñi nga xam ne teew nañ tey fii ñi nga xam ne ñoom teew nañ di déglu li may wax su ñu fi jógee ñoom it nañ ko jottali ñoom it ko jottali ñañ koy jottali ñoom itamit nañ def noonu kon xutba bi ku ko dégg tey jii teew nang ko jottali ci ña nga xam ne teewuñ ñooñu tamit nañ ko jottali mbir mi nekk ay jottali mbokk yi ay jottali kon yonent bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne am nga ci leer ci sa bopp nang ko nang ko jottali wax na ko feneen ne même su nekkee benn aaya la def ko kon mbokk yi daawa dugg na daawa mooy rek euh, jottale njàngale yonent bi jottale rek li ci alxuraan ak li ci ak li ci sunna loo xam ne leer na ci sa bopp mu bari mu néew su leeree sa bopp wareef la nga jottali ko ñi nga xam ne leeragul seen bopp mbokk yi loolu la borom bi allah loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal eh, eh, eh, xutbaam bi kon mbokk yi mu nekk ñaari tomb yu am solo ma dellusiwaat ci tomb bu mujj bu njëkk bi ci conclusion yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy fi muy wax ne nañ leen mooy nañ jàpp bu dëgër ci alquran ak ci sunna loolu suñ ko defee ñu réer yàlla nañ ko yàlla nañ yàlla xiir mbokki yi te yombalal ñu loolu yàlla nañ yàlla xiir ci alxuraan ak ci sunna te yombalal ñu ko ñaareel bi yonent bi salaam di ñu ñaax ci daxwa di ñu ñaan ci jottali mbokk yi ku yàlla baaxee am lu leer ci sa bopp ci wàllu lislaam nanga ko nanga ko jottali na nga ko partager ak ñi nga xam ne euh, ñoom amaana euh, leer ga des na si seen bopp bu ci kenn xeeb boppam nag bu kenn xeeb boppam ci wàllu jottali képp koo xam ne am na lu leer ci sa bopp ci wàllu diine partager ko mbokk yi bu ci kenn xeeb boppam jabar mun na def daawaa dama jëmale ci jëkkëram jëkkër mun na def daawaa dama jëmale ci jabaram waajur mun na def daawaa jëmale ci ay njobootam njoboot mun na def daawaa jëmale ci ay waajuram nit mun na def daawaa jëmale ci ay collègue du ay xeetu nit rek du ay ustaas wala ay imaam rek ñoom ñoo war a di fàttali li yonent bi wax ak li yàlla wax déedéet bépp jullit bépp jullit bu am bu xam dara ci alxuraan dara ci sunna te mu leer ci boppam su gisee ñu mu ko mën a baaxee su gisee ñoo xam ne war na ko mën a partager ak ñoom na ko def yal nañu ci xiir mbokk yi te yombalal ñu ko kon xutba baa ngi noonu mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam euh, mu nekk loo xam ne dañ koy war di ko liir di ko liiraat di ko déglu di ko dégluwaat ndaxte wax ca dëgg-dëgg mbokk yi bi def ci tënk mbir yi la ko daf ko ci tënk ñi ma lay fii ba benn yoon insha allah subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahuma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim